mbokki taalibe maa ngi leen di nuyu te di leen di nuyu waa Touba yëpp. nuyu waa Touba yëpp. nuyu yi. nee na mi ngi nuyu cantaakon yëpp. di sunu mbokki murit yëpp. ngi nuyu di di siyaare. ci weeru safar maa ngi am mbégte. nee mi ngi am mbégte bu rëy. di barkeelu ci noonee sëriñ bi daan def. mi ngi am mbégte di barkeelu ci sëriñ bi daan mooy di teeru nag yi. nee mooy di teeru nag yi. di ci sant sëriñ Touba. nee na di ci sant sëriñ Touba bu baax. maa ngi nuyu sëriñ Mountakha. nee mi ngi nuyu sëriñ Mountakha. di ko màggal. nee mi ngi koy màggal bu baax. di ko siyaare. nee mi ngi koy siyaare. di nuyu sëriñ Cheikh Mbacke. nee na mi ngi nuyu sëriñ Cheikh Mbacke. di ko sant tey ñaan mu yàgg fi te wér. mu ngi ci ndigal li ñuy sëriñ Muntaxa jox. jox. mooy santale ko santale yàlla sëriñ sëriñ sëriñ Touba. santale ko. yàlla sëriñ tuba ci loolu yi. ci loolu yi. ci la ne. ci la ñu nag. lii ngeen fi gis nag. lii ngeen sëriñ bee. sëriñ bi sëriñ bi moom la ko sëriñ Touba jagleel moom la ci loolu yi ci barkeelu rek maa ngi sant nag njaboot gépp sëriñ Saliou Thioune nee mi njaboot gépp bu ma njaboot gi bu nee njaboot gi mooy bokki taalibe yi mooy sama bokki bopp yi nee na jiital ci jiital ci sama rak rakam sëriñ Xaadim sëriñ moom ak ay rakam du ma fi nekk di leen lim su ma limee sëriñ Xaadim sëriñ Xaadim lim naa ñëpp. li ngeen fi gis. ci ay nag. moom moo ko wuti ji woon. sonn ci. def ci lim ci def. maa ngi seereel kanamu àdduna. sëñ Saliou ngi am na sama gërëm. sama rakka. maa ngi leen di sant bu baax a baax. di sunu baay murit mi ngi fi teew. gisuma ko woon maa ngi koy nuyu moo fiy sunu baay koy sat di di wax sunu mbég rek ci population wu Touba. nee na ndax ñoom. ndax waa Touba. dañoo génn. dañoo génn jàppale ñu. nee na jàppale ko na ci sunu xol. moo tax. moo tax lu ñu man lu ñu man. ci cuisine yi nga xam ni. ci waañ yi nga xam ni. ci yi nga xam ni. ci waañ yi nga mi ngi ci biir dëkk bi. mi ngi ci biir bi lu ñu ci man lu ñu ci danañ ko def. danañ ko def. ñu ngi ciy sant. ñu ngi ciy sant. ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax. bu baax a baax baax. lii lépp ngeen fi gis. na lii lépp ngeen gis. ci màggal gi rek la jëm ci màggal gi la jëm. sante ko sëriñ Touba. nee na sante ko sëriñ Touba rek. rek te fas yéenee nekk ci ay ndigal nee na te nekk ci ndigal. ab murit. ab murit. day dëppoo ak ndigalul Serigne Touba nee day dëppoo ak ndigal